Euh, di la siyaar di la delloo sa wàccuwaay waa ñun nag euh, dañoo nekk euh, société buy liggéey ci wàllu jokkalante xaalis ñu ngi fii depuis 2018 waaw di liggéeyal askan wi fexe wàññi njëg bi ndax bi ñuy ñëw fii daanaka xawoon naa jafe ci ku nekk mu mën a jël ci poosam di mën a jokkalante xaalis te du ko gaañ bi loolu weesoo ñu ñëw ci biñ ñëwee ñu changé prix bi def ko 1 pour cent mooy junni bu nekk boo koy yónnee fukki dërëm ngay fay bu njëkk ba junni bu nekk boo daan fay da nga daan fay 350 ci di yombalal askan wi ñu mën ci jotee suñu technologie mooy maanaam xarañte gi ñuy utiliser pour mën di jokkalante xaalis bi waaw tiwaawoon nag nekk dëkk boo hamni, ni dañ fay liggéey biñ ñëwee ba léegi ci wàllu gàmm gi bu weesoo gàmm gi mu nekk dëkk boo xam dafa actif économiquement ñu bëri fay nit ñu bëri yoo xam ne dañuy utiliser produit bi ah bu loolu weesoo ñu nekk ci Sénégal ah, ma Maodo li mu fi def ñëpp xam ko teg seen bët ak dayo gi mu fi am bu ñu amee liggéey bu ni mel ñu sumb ko ah, dafay jaadu ñun bu fekkee ndaw nañ sénégalais ñu bokk ci réew mi ñu jël suñu loxo teg ko ci. waaw looloo waraloon ah, bi ñu gisee levée de fonds bi ñu ne ah jumaa ji kat am na fu mu toll foo xam ni ku nekk ci ñun. war na cee mën a gis sa bopp teg ci sa loxo pour mun ko yeggale ñu daal di amoon càmbar suñu biir ñu ne ah nan nañuy fexe ba jël suñu contribution jox ko ci ndax réew moo ci nekkee ñiy utiliser ces produits euh, nekk ci réew mi am foo xam ne daf leen euh, Tiwaawan daf leen fa toll yow it nga nekk ci réew mi xam histoire bi xam dayo bi mu am dafay jaadu bu yii amee nga daal di jël sa contribution financière teg ko ci néew na bëri na waaye geste bi ñun dañ jàpp ni moom moo gën a important mooy ñëw jàppale ci euh, ci liggéey bu mag bi nga xam ni sumb ngeen ko boobaak léegi bi ko defee euh, ñu daal di jël enveloppe bu tollook euh, vingt million daal di koy jébbal ne ko ñun kat mooy suñu participation ñun en tant que entreprise waaye en tant que taalibe itam ndax it ñoom ngeen ko gisee en tant que mbokk itam ndax it euh, Sénégal gi ñoo ko bokk ñu daal di jël contribution boobu noonu bu ko teg ci sa loxo tey ji mu doon suñu participation ci yeggali liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ci jumaa Tiwaawan bi waaw kay di la ci gërëm bu baax a baax si ci euh, gane si giñ la gane si tey euh, kontaan nañ bu baax di la ñaan nga ñaanal ñu nag <laughs> ndax ay ndaw nañ boo gisee tey ji daanaka ñi ngi siy liggéey yëpp nii ay xale nañ waaye ñi ngi ciy góor góorlu waaw di ci def rek suñu warluwaay mooy góorgóorlu fexe liggéey ba mu jëm kanam waa ñu daal ñu laaj nga ñaanal ñu baax a baax a baax a baax liggéey bi jëm kanam eh, tey it ñuy gën a dellu si di leen gën a jàppale ci liggéey bi ngeen sumb waaw ñaan leen lool ngeen yàgg fi di wër ngeen continuer di ñu jiital waaw ñaanal ñu bu baax a baax si kàddu yooyu daal laa bëggoon yëkkati eh, ci ñi ma ànd ñëm maa ngi ànd ak eh, Omar Camara mi nga xam ne mooy ñu directeur financier Euh, di ànd ak falilu mi nga xam Cissé mi nga xam ne mooy gérer relation publique bi. ànd ci tamit ak Abdou Aziz euh, Macky taal mi nga xam ne tamit moom mooy gérer suñu euh, suñu légal lépp lu jëm ci wàllu juridique bi waaw man moom maay Manu Mbodj di directeur général bu Sénégal bi. waaw waaw man moom daanaka <laughs> na laa dëkk sax nag xam naa ni <laughs> suñ mbokk ngeen moom wax dëgg yàlla waaw tey sama papa tudd Abdou Aziz Mbodj donc moo tax xam mu gën a tig baax ma ma ñëwati fii macha jërë ngeen باها باها باها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigal muy ndigalu suñu sëriñ suñu mag سيد الكليفة الشيخ سيد أبو بكر محمد المنصور من أخ من صوبنا اللتي ما خليفة مام الشيخ الحج مالك رضي الله عنه لخليفة شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه لخليفة بايم يتدين خمن يوم في جيتون di turandoom bi ñu ko tuddee te mu njëkk a nekk xalifa Cheikh El Hadj Malick Sidi Aboubacar ñu naan Serigne Babacar Sy mën nañ ci teg sax ndax nit ñi daañu ko borom bone kaare bi ak leer yi maye may yeeg teg ci Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour El Hadj Mansour Cheikhul Qawmi Cheikhul Qawmi Qawmi Serigne Serigne si tur ñu bari dañuy defane gannaaw bi fi suñu woy seen woyjur jóge la nit ñi commencé wax tur bi waaye tur bi jib na te bàyyam jógee gu fi Cheikh El Hadj Malick dafa amoon ay relation ci wàllu xam-xam mag ñu baax ñu bëgg yàlla ñuy boroomi xam-xam bëggal ko seen bopp ndax Cheikh El Hadj Malick ci njëlbéenu ndawam jaar na Mauritanie daje nag Cheikh Mouhamadul Xaawa Cheikh Mawlud Fall am li ñu ko dénk ki ne ko am na luy ñëwi ëllëg su yegsee na nga jafe ni na nga defe ni na nga defe ni loolu nag yàlla dimbali ko ci may ko ko waaye moom itam lañ ko yàlla may mu sàmm ko dayob sàmm jaamu yàlla ci wàll yëpp ci wàllu social ci wàllu diine amuk mbokkoo itam ak ñi fi nekkoon di ay colonisateur ku xam àdduna la ndax àdduna itam xam ko farata la yàlla dogal ñoom ñoo ñoo ñoo ko daan wax cheikhul qawmi ba ñu daan ñëw di seeti si bàyyam Cheikh Alhaaj Maalik ndax am na sax ñu fi daan ñëw ngir tëral ay bind ci moom moom Cheikh Alhaaj Maalik loolu kon lu yàgg la muy xalifaam tey ni mu nekk xalifa turandoom Seydi Aboubacar نجد الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه لي خليفة إتم تي ويجر متد مولانا الشيخ الحاج عبد العزيز الدباغ لي خليفة إتم تي سنو ويجر متد الشيخ الحاج محمد الحبيب سي ميغا خمنا موتو فون الشيخ الحاج عبد العزيز ندندك نيوم لو خاو ياك توتي مام سنو ويجر الشيخ الحاج محمد الحبيب سيرين بي داما كوي وقت توجور نكو الشيخ سيد ابو بكر يو لي تخ مانا ياي سا خليفه توروندو سا توروندو سيد ابو بكر نيكو ووتو وون نيب بي اي دوم دانيو ديم كا جيك نيك خليفه مودي سيرين مصطفى سي الله عنه كتي توب مدام شيخ سيد محمد المنصور مي تودي سام بابا لاج منصور مي سوي جور دي سوي وجور بدم كاتي توب دي الشيخ سيد احمد تيجان تي موسيوي تور المكتوم دمنا كاتي توب دي الشيخ الحاج عبد العزيز الامين يم يبني سيد مك دم أه، تبارك الله ko defee nag yow tey sa kon boog sa turandoo sa xalifa ma bàyyi nga suñ baabu ko ndax mbaawam yëpp dem nañu kon bokk yow itam yaa fi nekk di doomam di turandoom euh, bég nañu nag kontaan nañu ci am sharafu am honneuru tooge palaasam ci ndigal jokkaleen teg yéen ay kàddu ci ndigalam mooy suñu lépp mooy suñu lépp mooy suñu suñu lépp manuma ci xuus waaye daal li lim bi mu toogee daal mat na ko ci biir mat na ko ci biti lenn de moom xam nañ ko ci moom te ñëpp Sénégal yëpp xam nañ ko ñu ngi koy commencé di xam ñe ko xamuloon dalam teeyam bëggam yàlla bàyyi xel yàlla bàyyi xel mag ñi euh, def fa doom cay dox di ko yëwanal diko rafetal yàlla rek xam dayo ba yàlla dogal ni itam ki nga xamne mo fi jekkon nek gannaaw bi magam yooyu dem serigne mustapha si serigne serigne Mansour si borom daara ji Cheikh Seyd Ahmed tijani Al Maktoum ki fi ñëw ginnaw ñom ñooñu mu di Seyd Abdoul Aziz Al Amin ñoom benn jëmm lañu ñu woon du ñu ñaar benn jëmm lañu woon ci taxawaay ci yitte ci concertation ci yëwanal mbirum kër gi ak mbirum lislaam bi ak mbirum tariqa bi wala mbirum tariqa yi ndax noonu la seen bàyyi allah jabtu daan doxale noonu la daan jëfe gëm ko lool nag ndax allah jab muy jëf muy jëm jiital na yàlla ci kanam waxuma maakum ay na sadaqallahu al yàlla nee na na ngeen waajale seen bopp ak seen jóg ci yëngu jëm ci man te ku yëngu ci lis ci àdduna bi ci man nga jëm ndax maa bind maa leen bind bind àdduna eh, bëgg ngeen yëwanal àdduna yu dëggeel àdduna àdduna àdduna yéen yéen yéen man yàlla ndax maa leen bind eh, su ko defee nag sëriñ Babacar Mansour sumb nag li li mu sumb muy lu rëy nga xam ne ndeke yoo kenn ku nekk luy sa cër ca la nga war a leen sa liggéey yu maam soo demee ba toll ca ba nga koy def sax ñu bari dafa leen di bett jumaa ji lu rëy la ci Cheikh El Hadj moo ko taxawee moo ko liggéey bu jumaa ji sotti mu mu mu mu inauguré ko ñu ngi wax ne at mi mu ko inauguré at moomu ci la papam ci alxaaji Abdul Aziz Si Dabakh gane àdduna benn góor nee na ma maamam nee ko bés bi góor gi di julli jumaa ji moom maam Alaaji Malik mu ngi jàng suratu Yaasin gannaaw ba mu jàngee faatixatal kitaab bi jàng ma neex yàllaa ga ñàngin ba tartil ba tajwid ba dara desul moom dafa feegoon lépp yàlla ñu ko yàlla fayal am nit ñoo xam ne ci biir julli gi dem nañu ba dañu xaac yuux moomatuñu seen bopp ndax yàlla yàlla rek moom moom moom la yëg ak alquran yi nga xam ne waxu yàlla la dañuy yooxoo nag ba ba ba julli gi pare mu ne maamam ne ko mu ne ko mu ne maam waaw ba ba góor gi jógee lu mu def lu mu wax nag ban commentaire def mu ne dara dafa jóg dal sant def tax ba xeer salixaat bu pare jóg rek romb nit ñi dem nga xam ne kon dara yëngalu ko ci yooyu waxu yàlla la wax jaamu yàlla la macha kon boobu yàlla xaal mën na leen jàpp waaye moom يتجن يمو أمك يلا نك في تلو في نك في توك سخدي وقتان فاي أملو منيرو ولا دوليكو تماتنا بفر يلا نيون يلا فعل سيد أبو بكر مؤمن ثم أمي شرفه ولا أونر بولي ماكين إن علي نرسوار ماك سمارا كيف أم مختار كيف أجمع ألفا ميورو بيلا أك سيد أبو بكر من يخبنا موي كاتو سنبا والحاج حبيب أك مام جوغو من يخبنا سنيو دوم بايلو أه maa moom daf ma daan defal ay ñaan maam Mor Diosi si eh, papaam nag pap Sëriñ di kenn di ku baax a baax a baax ñoom ñëpp pap Sëriñ ci keppaaru Alaaji Mansour la nekkoon wax ji daal gudd gàtt moo di ne liggéey nañu tànk yi li ngeen def rëy na sell na ni nga waxee itam ci dëgg dëgg waxe nga làmmiñu ñëpp ndax yéen ñëpp surtout Alaaji maa ngeen yéen ñëpp surtout Serigne Touba ngeen yéen ñëpp surtout El Hadj Abdoulaye Niass ngeen ca Kaolack ak ak ak ak maam yu baax yi bari nañu. seen maam ak Cheikhul Hadji Abdoul Aziz am na woy wolofal bu mu woy ngeen baal ma ci guddal gi ak téye bi amu leen jot waaye wax mu ngay wolofal la ko def woy wolof ci mujj dundam mu ne nañ jokk mbokk gi ñun ñii ñëpp te bañ di ko dog wala jàmm te ànd te bokk commencé fu waay ne ànd ci rafetal commencé tudd nag tuubaak tiwaawoon ñasee nag jaamal ak canaba kadaka laa yéen wa njaasaan koo ci gis saralal kooku mooy Cheikh Alhaji Abdoul Aziz kadaka saaxi ma albaqina ajmaahim yamul foofu de da fekk ñooñu laa mën a tudd waaye ñëpp ñoom ñooy ñooñu rek yow mag ponkal te bul doyadal ci la rafetal ànd ci cadre diine yem ndax rafetal gi rafet gi yàlla ndax ñay rafetalante ci seen diggante ku leen bind yàlla ku ku yore seen lépp yàlla ñuy bégg nag wuutu ci ndigal sëriñ bi di xalifa bi ànd ak jotaay sama rakk yi Pape Mokhtar Kébé maam Alfahima Yoro fi Seydi Aboubacar si maam Ndiogou si recevoir leen bégge loolu tànk yi ngeen dugg ci seen kër gi yal na yàlla doollee barkeel doollee rab doollee yëwanal fan wu gudd yàlla ko mën a maye moo wéet na ci ndax moo bind yal na leen ko yàlla defal kenn ku nekk la nga bëgg ci sa xel ak sa xol ak sa xalaat ba ci ñun ñii ñaan itam yàlla boole ñu yiw boole ñu jàmm boole ñu teranga te dolli te dolli te dolli dal ak nite ak jàmm ci réew mi réew mi am na phénomène yu bees yu fi feeñ kenn xalaatu ko woon ci Sénégal ndax suñu demee ba ci réew mi am ñoo xam ne ay groupe lañu bi attaqué lenn ci magu diine di wax ci seen der di doo doo waaye nag yonent bi jaagoon nag lu pour ni mel yàlla ne ko gëw maa yow nga muñ muñal say mbokk jaaroon nañ fa lu ñu dajul amul muy Seyduna Ibrahim Seyduna Moussa mu Seyduna Isa ma maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusuli min qablik takkal sa takkaay tijaar man man maala man maa liggéey yi ngay dégg nag bu mu la gàllankoor doxalal sa mission eh, di leen ñaanal nag yàlla lii lu rëy la ci ñun ndax fi ngeen di liggéey di dimbali nit ñi ci ni ñuy organiser seeni mbir wala nga xam ne financement yi ñu def daañ ci def seen participation di ko jaarale fa muy jaar ba mu yëgtu te yéen bokk ngeen ca ñooñee di ca liggéey liggéey bu sell bu rafet bu yiw ngeen toog na ñun itam ah ñun nañ taxaw ñun itam wane suñu taxawaay fi ñuy liggéey ci banque bi ak vev ba ba ñun itam ñu seddaloo yàlla gannaaw ba ba ñu yàlla gënee xam suñu bopp waaye ñu won rek ne bañ ca tolloo di doxal mbirum jumaa ji def nañu suñu participation teg nañ ko ci loxo xalifa bi ak njabootu Cheikh Al Hadj Malick te yéen ñëpp ak ñun ñëpp ñooy njaboot ga te xam ne yàlla dina ko bége dana ko bind danañu fekk dañ ko fekk ëllëg suñu dajeeg suñu borom mu bokk ci xasanaat yi nga xam ne yàlla ñu baax ñu def ko jaay ngeen jëf ñu ngi leen sant yéen ñëpp ñu leen di ak mbooleem ñu ngeen bokk ñu ngeen bokkal liggéey bi ci góor ñi ci jigéen ñi loolu daal moo doon kàddu yi yal na yàlla dolli dolli ñu yiw dolli ñu sutura dolli ñu barke barke dolli ñu teranga gën a nàmm suñuy xol ci gëm yàlla ak xam yàlla ak di settantal yàlla ci suñu xel ak suñu xalaat kenn mënu ci dëkk abadan waaye moment yu tuuti rek danay jaar ci xelu nit wala xol mu yëg fa bànneex boo xam ne du ko yëgati lu dul ci ko ko yàlla may rek tawfiq loolu daal mooy que ñu ngi nuyu ñëpp su ngeen demee bokk ya ngeen fa bàyyi ndax kenn ku nekk yaay ñooñee fi yéen ñi toog eh, tabaarakallaahu kontaan naa bég naa maag sama rakk yi nga xam ne sëriñ bi moo ñu yebal pour ñu recevoir leen toog ak ndax njaboot ngeen ni ñu ko nekkee njaboot ngeen moom itam ni ma ko nekkee ci Cheikh Al Hadj Malick ak Cheikh Hadj Omar Fouti bi nga xam ne mooy sëriñu Al Hadj Malick di woy juram jox ko li mu ko jox teg ko ci loxo yam ko teg muy maamam mi ñu tudde alfa muy nijaay mi ñu tudde maam alfa mi alfa ma yoro wele ah tabarakallah loolu moo doon kàddu yi jërëjëf إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم